salaamaaleykum fii mbokk internet euh, Feeling Dakar TV ak Click Dakar TV alors euh, tey dañoo ñëw nga xamante ni mooy euh, kër Soxna bi amee Sénégal ak Hollande ñu toog moom seetaan moom premier mi-temps ba yàlla def lu gën a mu nekk dëkk bi nga xamante ni xam naa ne foofu Sénégal bi yëpp ak tuuti na ne bi ñu sori ci wax bi avant ñu koy laaj dëkk bi dañ koy laaj moment comme noonu ñu seetaan la bi ndax la gisee woon match bi premier mi-temps ak deuxième alhamdulilahi rabil alamina sant yàlla julli ci seyduna muhammad ñaanal sama bunt ci sëriñ tubaa seexul xadim sëriñ Muntaxa Basiir fu kilifa diine kilifa aada nekk soxnaay daang lay ziar yi comme sénégalaise dund ko ak dundu ferte ak sénégalais yi préparé ko préparé bu mucc ayib comme sénégalais mais aussi am naa lu ma métti quoi su dee nëbbuma sama bopp parce que dama nekk sénégalais boo xam ne sama réaction ci Sénégal dafa dépassé wax ñuy fowee samay kàddu tey ku seetaan match bi rek xam ne boo amee jàngat wala wala soxoroo ci ci ci ci ci am am ci am ambition ci waxu nit wala gëm say kàddu di nga xam sama kàddu yi am na lu def. Ah, non dama mer nag. sincèrement parler dama mer dama énervé dama dama dama dama am naqar boo xam ne man xam naa ne yàlla ànd naa man ànd goo xam ne waroon na maa mën a taxawu sénégalais yi jàppale ma ndegam yàlla mi nga xam ne moo ma sàkk moo ma dimbali di ma wan ba wan ma sunu yoon di ma wan wan yoon wi tout le temps wan ma yoonu coupe d'Afrique ma nekk ci li ma ci nekkee ba kenn waxagul ci match bi laa génn import wax fi ne sarax bi gis naa ko ndax li ma gis kenn du ko gis parce que man maay ki ko war a gis gis naa ko mooy ndel ma ne ci président de la république laa ko tàmbalee ba ci Aliou Cissé ba ci joueurs yi ba ci supporters yi na ñëpp ndelu waa ndel fan lay nekk ndel fan lay nekk ci nit bii ñu rate lan la ndel bopp bi dugal lu mu bopp la ñu dugalee mbëkk lañ ñu dugalee mhm. kon réaction bi lan la mhm. ndel boobu ñuy xeeb mhm. du ndel pour gagner ay match mais ndel la ak pour coupe dama leen ni woon bu ñu dugal bu ñu watoo ndel yi coupe du monde mi ngi ci loxo peuple sénégalais yi ak ñoom staff bi coupe baañ ci seen loxo. parce que moment bu match bi jeexee gis nañ staff yi moom mooy ndel Ah, mel ni Sénégal ah, boo waxee dara fois dañ koy dañ koy sàkkal Sénégal yaa ngi insisté si ah, parce que boo dee xool sénégalais yi mille sénégalais cinq cent personnes yëpp mm-hmm. watu nañ mm-hmm. mais ñi war a jiite wat bi ñoo watuwut lan mooy kawar luy saxaat mm-hmm. lan mooy kawar lan la fi nit war mën a am muy sax kawar nga ne yow doo ko wat mais bugguma Sénégal ñoom ñu gañe leen parce que sama réew la samay doom ñooy football su ma sañoon ñooy indi ndam li parce que teewul ne wax naa te defuñu ko te teewul li sénégalais di def citoyen di ko def def naa ko te laajuma état laajuma ministre laajuma n'importe qui que cent francs lépp man maa ko def ak sama engagement bopp ku ma war a solal mayo solal naa la mayo préparé naa ay añu mucc ayib préparé naa sama déguisement comme sénégalais comme maman des lions préparé comme citoyen comme patriote parce que man loolu laa gëm que ne sa réew man waxuma nañ ma yóbbu Qatar ah néew ma na ma ministre bi jox xaalis ah néew ma président jox ma xaalis ah invité wu ma kenn que ne damay recevoir benn sarax wala benn dama ne defal leen man ndeli li ci des man dinaa ko def ak samay propre moyen ñu jël coupe bi parce que coupe d'Afrique dama ko jaayante woon jaayante bu mucc ayib mais nag man du ma doon sénégalais bi nga xam ne sama équipe damay taxaw di leen dëkku ci ne sama wax ji boo leen ko deful da ngeen yàqu leen malgré que defuñu mais maa ngi leen di ñaanal ay ndam ci seen kanam. mais comme ni ko waxee nga dig na ma mais mënu ci dara tamit parce que man man citoyen laa comme ñëpp dama am droit rek yàlla may ma li ma may ci réew mi su ma waxee maire yi dañ maire yi dañ leen di changer ñu changer maire yi dem leen vaar. nit ki am na loo xam ne bu ko defee ci réewam du benn at du ñaari at du ñetti at du ñeenti at juróomi at pendant de dix ans ak sénégalais yi te samay wax moo fay ne te bara àddunay tukki samay wax incha allahu rabbi ni ma yàlla def ak xol bi ma am ak yéene bi ma am Sénégal ak objet bi ma am ak li ma yàlla dimbale ba ma amee huit ans la mesure que match man match su ma koy seetaan dama yàgg ne man maay football ci biir stade bi parce que nattu boobu la ma yàlla def dama ko judduwaale mat xam-xam bi ak ni ma toll lu ma suñ borom branché la mm-hmm. ci bi may am huit ans laa tàmbalee seet ba toll ci ni ma ci toll mm-hmm. mais maa ngi ñaan match yi ci seen kanam yàlla ci yàlla def ndam parce que tey défaite bi bu fekkee ne ku ko def perte man ci laa bokk mm-hmm. parce que dama ci financé te malgré maa ngi toog di seetaan mais xam naa ne duma leen ne da ngeen ndax leen sama làmmiñ bi du wax mukk defet tu mbër waaye du wax defetu match parce que sama njaboot ñoo koy def te man duma désplabilité lañ koy wax duma ko def benn sénégalais ci àdduna du tas yaakaaru kenn mais nag njunju doy na borom xel wat yi. pourquoi moment bi Sénégal ci seen loxo. Sénégal pourquoi am na ay samay samay wax wax naa ko ci ndel laa laaj ndel invité nañ ma télé DJ Bourse hmm. euh, ma ni leen ndel. ñu invité waat ma yeneen site ma ne leen ndel parce que ndel bi dafa am lu ma ci li ma ci li ma ci wan du du naan saay daal dama insisté ci ndel ndel fa la force ndel forcé ndel ndel ndel jour leen yàlla sàmm football nañ lu rëy ne woon naa leen saajo Mané manqué na fi manquant Sadio Mané neexuta remplacement ci équipe Sadio Mané c'est meilleur ma Sadio maane c'est professionnel Sadio maane ku miin balu Sénégal la xam na ni muy doxee ak tubaab yi xam na ni muy doxee ak naar yi xam na ni muy doxee ak africain yi réew moo gis tey am pay pay du ñàkk te Sadio mooy pay mais ñi ngi ñaan yàlla na wér dellu siwaat suñu match ci Sénégal Sadio Mané nag lii mooy ngëneelam bu ko lii dalut woon li ko nara a dal du ñu gënal ñun sénégalais yi kon ñu ngi koy massawu di ñaanal waa Casamance di ñaanal sénégalais yëpp tey euh, ñu ngi dund défaite bi mais dañ koy dund ko ne Sadio Mané mi fi ñàkk moo tax mais xale yi football nañ jàmbaar lañ jaraaboor boor ngeen jëf gën leen a góorgóorlu Aliou Cissé ñu ngi la naan félicitation gis nañ liggéey bi rafet na mais ndelu leen dimbali leen ma ngeen ndelu jàppale leen ma ngeen ndelu ku nangu say wax boo ko dégloo sa kër ñu déglu la kon booy wax ak say mbokk nañ la déglu maa ngi leen koy waxaat coupe bi mi ci seen loxo ndel rek a ko fi indi keneen ku am gàllaaj bu dul ndel ci réew mi defal boo ko defee ma xam ne yow yaa fi ne hmm? waaw ku mën ku am leneen lu remplacer ndel defal dama ne ku am leneen lu remplacer ndel yi ma wax nanga nga def ñun ñoo koy seetaanandoo man bu match ñëwee lu ma am dinaa ko ci def barke Serigne Saliou hmm. buñ ne sénégalais mooy football lu ma am dinaa ko génne ci lu baax waaye lu ma am ci lu bon dinaa ko denc hmm. mais ndam li li ma koy wan man ak fi ma koy jëli jee gone du fa dem mag muy fa du fa dem xale buy xool di ngalaju du fa dem man rek maa mën a taxaw Sénégal Coupe d'Afrique dem leen vaar ak samay sarax ak lu mucc ayib lu nu def dinaa ko def ku ne gerte ma def gerte ku ne suukar ma def suukar ku ne fruit ma def fruit ndax citoyen laa comme ñëpp mais li ma wax man tamit ngala nañ koy def ni ma leen koy waxee kon lii mën naa ñàkk waaye sant yàlla lii gën tey rasta kenn judduwaale wu ko bu sa bopp tojoon léegi nga watu ñu taf ko kawar judduwaale wuñu ko te bu ñuy dee du ñu yóbbaale ay rasta kon boo rasta dañoo juddu fekk ko fi ku juddu wat nan la te mbëkk moo dugal bii bi te mën naa wax ne même match yi ci kanam bu nu watuwul lépp luy dugal bii mbëkk lay doon incha allah. jërëjëf di leen waaw. alors euh, comme yàlla rek ak gën a rafetalaat toogaay yi quoi tamit gars yi sëriñ si yenn affaire yi ñuy digal ni ñu koy xeeb tamit nañ ci bàyyi xel bu baax parce que kenn jarul xep quoi ku si mel tam Soxna Aida wax na gars yi fi wartu leen del ñu ñàkkal ko fayda te bu ñu xam te tamit première bii bi ko dugal lan la du bopp. kon respecté leen gars yi tamit bu baax tamit quoi tamit ay karambaay tamit lu mu gën a gaaw tamit nañ ko dagal bi mu dem tamit am na lu leen yàlla may daal waaw nañ leen bàyyi xel bu baax ñoom tamit waaw. Hmm? non Sadio ci mais tamit deuxième mi-temps bi tamit changement bi bi saawaay def tamit Aliou Cissé baax na baaxul daal mais nag waroon nañ gën a xoolaat daal bu baax daal moom waaw. non ndel dafa am importance. Hmm. dafa am importance ndax nit ki boo xeeb quoi ndax fii la commencé woon ndax ñun ñoo dëkk fii jamono yi lii bi euh, Coupe d'Afrique bi fii la nekkoon di génn di génn ay ndoxam ak ay eh, soowam gars yi xeeb ko mais tamit gis na tamit ndam rek la indil tamit. nañu respecté rek lu ñu wax yàlla baax na daal dinañ ñaax ne ñu gën a rafetaat ñu gën a defarul waat rek waaw incha allah lépp dina baax bu soobee yàlla waaw na bidogman la ye cung say say sa yore rob de Thank you. jënd na ma soow jënd na ndox soow quarante ndox yi